Abdourahmane Maïga ñu ngi lay nuyu. waaw lay fay maa ngi fay bu baax jërëjëf euh, yow di fàttali ni juriste nga bokk nga itam ci cercle cadre république de valeurs bi nga xam ni Thierno Alassane Sall moo ko daal di jiite nekk tête de coalition Sénégal kese yow itam nga nekk candidat ci élection yi ni mel Abdourahmane Maïga la ñu war a waxtaanee bokk na ci euh, li nga xam ne moo jëm ci utum majorité euh, fële nga xam ne moo di ci assemblée. assemblée nationale euh, gis nañ ni fan yi yëpp li nga xam ni tam moom la ñuy waxtaanee mooy euh, transhumance wala vague de ralliement yi nga xam ni itam ñu ngi koy nemmeeku ñu ci bari itam euh, di mu wane seen soutien parti Pastef bi nga xam ni itam amoon nañ taxawaay ci li nga xam ni itam moom moo jëm ci wàllum transhumance ci langum politique bi daanaka ñi nga xam ne ay responsable woon ak Macky Sall wala sax parti démocratique sénégalais ñoo di Ousmane Sonko Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, li ni mel ban commentaire nga ciy def. waaw monsieur Dramé donc euh, voilà merci si question bi si laaj bi mu nekk laaj bu am solo donc man li ma ci mën a wax rek mooy li Sénégalais yi euh, ñëpp constaté mooy tey jii dañu gis ne que tey politique. dafa nekk loo xam ne tey jii en tout cas ñeen ñoo xam ne maanaam jox joxuñu ko gëddëm parce que politique dafa ànd ak morale dafa ànd valeur ak li nga xam ne loo xam ne da nga dëgg loo xam ne da koo ko gëm idéologie parce que tey aujourd'hui fekkee dañu gis ne que tey jii ñi nga xam ne démb ñoo doon ñaññ par exemple parti au pouvoir di leen yekk lu mel ni mi midi ba ñu jëlee leen fi tey jii aujourd'hui ñu gis ne ñooñ ñooñu nga xam ne dañ doon xeex démb euh, parce que dafa am lu ñu doon doxalee loo xam ne askan bi ci boppam ànduñu si woon donc ñu gis nekk tey aujourd'hui ñoon ñi nga xam ne ñoom ngañ démb ñoom ñooy rejoindre tey ji parti Pastef bi nga xam ne tey jii euh, son président son Sonko ci boppam li nga xam ne moo doon xeex li nga xam ne moom la ñuy wax euh, euh, transhumance mu nekk loo xam ne vraiment moralement sax dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy interdire dañ parce que affaire transhumance loo xam ne nit en tout cas as gor bu nekk am na loo xam ne da ko war a bañal sa bopp parce que nga am gëm-gëm parce que gëm-gëm mooy lan loo xam ne nga am loo boo xam ne moom ngay topp mais su fekkente ne tey ji yow démb euh, voilà li nga xam ne mu ngoon wax tey nga koy bañ tey nga ko nangu donc loolu dëgg-dëgg man euh, personnellement dama koy condamné comme ni ko sénégalais yu bëri di condamné Ousmane Sonko ci boppam waxoon moom en tout cas du ñu nangu tey aujourd'hui ñoom parti Pastef ñuy jël ay transhumants moom ci boppam ko doon xeex ci la bokkoon waxoon nekk ñi nga xam ne ñoon opposé wu ba une certaine date nañu toog di opposé wu am déet wax na ko wala waxu ko mm. mais te fekkee ne tey Ousmane Sonko boobu moom tey ji mooy ñëw di nangu transhumance yooyu ñu ñëw di dugg ci biir Pastef ah parce que tout simplement peut-être que amaana boo xoolee si bëri ci ñoom c'est parce que dafa am loo xam ne peut voilà euh, dañ koy jéem a nëbb nëbbal parce que en général koo xam ne te jii aujourd'hui fekkee ne yow leer na ne amul len looy tiit wala amul len loo xam ne tey jii jëfee ko ba nga xam ne ay yoon a mënal si top donc gisuma lan moo tax ngay transhumé donc en général si bëri transhumance yi su bëri boo xoolee c'est parce que am nañ ay maanaam njool-jool yu def yoo xam ne dëppoo ak yoon ba ñuy jéem a donc échapper en tout cas à la machine judiciaire moo tax ñuy jéem a yàpp nekk bu ñu duggee donc loolu laa laa ci jàpp nekk donc mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy bañ Sénégal bi ko xeex ñun ñëpp ñu koy xeex dont le parti au pouvoir Pastef ci boppam kon tey jii euh, bu ñu gisee donc xeetu nit ñooñu ñuy transhumé te ñun ñu si boppam ñun am na ci cas au niveau de la République donc euh, loolu dañ koy naxarlu fu fu naxaru mën a yem. waaw ci beneen wàll gi Abdourahmane Maïga euh, fadilu Keita moom mi nga xam ne itam mooy directeur bu campagne bu Ousmane Sonko nee na ñoom amuñu benn adhésion bu nga xam ne am nañ ko ay soutien nag ñu ngi bàyyeekoo fu ne moo xam PDS moo xam APR di ñëw di leen jàppale ñoom itam nee nañ bëgg nañ soutien yi itam loolu xanaa mënoo leen ko bañal de. waaw mais Falilou xam nga moom day politique ab politicien moom politicien rek la mën a doon day day wax lu ko neex a ne lu ko lu ko arrangé. waaye tey jii Sénégalais gis nañ ñoom seen bët ñu gis de benn cahier boo xam ne dañuy wax cahier benn charte boo xam ne dañuy demandé képp koo xam ne da nga ñëw au niveau de la en tout cas nga ñëw nga signé ko. donc gis nañ ko fii donc gis nañ gars yi ñëw signé charte boobu mooy charte d' adhésion donc bu dul adhésion loolu lan lañ ko mën a tuddee nga ñëw man en tout man maa ngi ci biir Pastef donc loolu <laughs> bu dee dañoo ay soutien la bon bu ko na woo mën na ko mais li wër te mooy euh, charte d' adhésion mooy adhésion mooy da say ci biir Pastef donc loolu gis nañ ko fii donc je pense que bon Sénégalais yi bon dofuñu gis nañ ne que bon voilà euh, manipulation bi bëri na euh, wax bi wala gars yi li ñu fi waxoon yëpp su bëri. dëppawul ak li nga xam ne moom la ñu jëfee tey jii donc je pense que bu ñu wax naan ay soutien la et que du adhésion bon je pense que sénégalais yeewu nañ donc mën nañ ko apprécier en toute souveraineté. Euh, Abdourahmane daal di euh, wax itam ci leneen coowal Madiambal jaañ euh, moom candidat la bi nga xam ne dañ ko investir ci coalition jàmm ak njëriñ bu amadu Ba moom xam nga ni fan yi dafa amalante ak yoon maître Bamba Cissé di avocat Ousmane Sonko ñoom déposé nañ ab plainte waay moom la wax mooy dafa nekk période campagne électorale bu ci paree dana dem wuy ji ndax danga ànd ak moom ci li ni mel. mais mais lu leer mais loolu loolu question ànd mais yoon ci boppam moo ko may sañ-sañ boobu parce que yoon li mu wax mooy nit candidat bu ñu la xasee ba investir donc yoon da lay sa c'est-à-dire mënuñu la toppee pour des délits d'opinion te d'opinion mooy maanaam ngay wax en tout cas sa xalaat ci réew mi ni muy doxee. c'est donc donc dès l'instant que ñu investir rek donc am nga li ñuy wax liberté d' expression te liberté d' expression boobu constitution ci boppam en son article huit moom en tout cas constitution 2001 moo ko may bépp sénégalais képp kuy sénégalais tey jii am nga sañ-sañ exprimer wu ci réew bi ni muy doxee moo xam positivement wala négativement rawatina nag nga nekk candidat boo xasee ba nekk candidat donc dañ lay protéger donc loolu yoon moo xam li tax ñu def loolu c' parce que tout simplement dañuy bañ ñu ñuy voilà ñu leen exercer benn pression boo xam ne en tout cas dañuy ragal ou bien du ñu am sañ-sañ. pour wax li nga xam ne moom la ñuy xalaat par rapport ak dox bi ni muy doxee kon tey aujourd'hui Madiambal il a parfaitement raison te fekkee ne Ousmane Sonko porté na ko plainte su ko neexee mu porté plainte mais plainte boobu bu fekkente ne dafa wax en tout cas par rapport ak activité politique yi muy mënee ci wax xalaatam ci par rapport ak réew mi ni muy doxee donc je pense que plainte boobu moom du mujj fenn du mujj fenn donc gars yi dañuy politique donc dañuy jéem a xoxotal nit ñi dañuy jéem ne xam nga yoon lu muy doxee donc je pense que war nga xam ne que lii ñu koy toppee en du mujj fenn loolu daal laa ci mën a am mais su fekkente ne tamit nag beneen délit boo xam ne du dee délit d'opinion maanaam tey jii nga dem euh, voilà euh, mbëkk oto jàmbur ah wala nga ñëw maanaam jël alalu jàmbur loo xam ne. dëppoo ak yoon wala non droit waaw campagne lañ nekk rek lu waay neex def. non non non du lu waay neex def non xam nga euh, immunité ne veut pas dire impunité immunité du impunité dañuy wax dañ ko cause dañ ko circonscrire dañu ne képp koo xam ne candidat yow mënuñu la toppee ci ay délits d'opinion loolu la ñu wax mais ça veut pas dire que euh, voilà da nga ci ci ci ci ci ci dans l'impunité ne da ngay dem par exemple à cause de cette loi <laughs> nga dem euh, voilà dóor doomu jàmbur ah voilà pour ce qu'on appelle des coups coups et blessures wala dem euh, rawal sàcc yëfu jàmbur non loolu bu na jëlee en cas de flagrant délit donc yoon day dal sa kaw. loolu moom c'est c'est déjà c'est clair. loolu mais fekkee ne ay délit d'opinion la loolu moom benn candidat mu ñu ko toppee pour ay délit d'opinion. la ñu dese ci ay fan euh, ngir campagne électorale élection législative bi anticipée yi jeex euh, ba bareetul euh, waaye itam may ga xam naa dinga nga d'accord ak man ni li nga xam ne moo jëm ci candidat wala tête de liste yi ñu ci bari léeg-léeg bu dee déedee kaddu promesse ngay dégg dégg itam li nga xam ni itam moo jëm seen contrat de législature. ndaxam yéen itam coalition Sénégal kese noonu la wala da ngeen ni promesse wala daamu fu ngeen tënk seen wax. <laughs> mais xam nga coalition Sénégal kese boo xoolee ñu ko ŋàng ku mel ni Thierno Alassane Sall ku mel ni Abdoul Mbaye ay Théodore Monteil mu am na ñoo xam ne c'est des hommes d'État loo xam ne lépp lu ñu la wax ah dañ ko sécuriser dañ koy dañ koy jëfee. parce que du ñu ñi nga xam ne ñu naan naan wax waxeet parce que tey jii jamono bi ñu toll nii wax waxeet bi moom daanaka <laughs> dafa nekk benn règle waaye nag heureusement ñi nga xam ne ñu ngi gore ba tey ñu ngi continuer di gore seen waxu démb moo dëppoog seen waxu tey te boobaa incha allah donc bu ñu demee assemblée tamit loolu la ñuy doxalee Thierno Alassane Sall dem na fi assemblée nationale voté na fi loi bi parce que loolu la loolu la diggaale woon askan bi moo doon contrat de bi mooy bi ñu ne Euh, beneen organisme boobu nga xam ne c'est des institutions budgétivores donc da ko parce que da ko promettre c'était une promesse électorale donc respecté na ko kon aujourd'hui ñun au niveau de la coalition Sénégal Kessé boo doon xoolee ñu sommes l'une des rares ñun rek ñoo fi indi benn contrat de législature présenté ko Sénégalais te ci biir contrat de législature boobu am na lu bëri loo xam ne en tout cas c'est des promesses yoo xam ne dinañ ko dinañ ko dinañ ko matérialiser en acte bés bu ñu demee assemblée nationale te bu ci njëkk mi nga xam ne man personnellement boo xam ne moo ci gën parce que ku nekk ak sa appréciation mooy jàpp naa ne tey ji am nañ ay jeunes yoo xam ne suñuy ndaw yoo xam ne dañ leen rayoon ci événement mars deux mille vingt et de quatre vingt et quelques jeunes yoo xam ne donc euh, ils sont da da da da dañ leen ray ils xam ne des milliers de xam ne ba tey jii ñu ngi nii si lañ ñàkkee seen liggéey xëyatuñu gontutuñu ñoo xam ne si lañ yàqee seen alal seen biens vraiment yàlla xam doy na donc ñi nga xam ne dañ demoon en prison jóge fa vraiment am ay traumatisme crânien ay traumatisme des troubles psychiques yoo xam ne fi lañ jógee dof xam nga te boobu léegi kenn xamul ñan ne auteur yi donc ñu xëy xëy nii rek jékki-jékki loo voté benn loi pour ne bon voilà donc dootuñu toppee kenn ci événement yi nga xam ne fee yooyu nga xam ne moo xewoon en mars 2021 ñun au niveau de la coalition Sénégal kese mmh. bés bu ñu ñëwee assemblée nationale dinañ voté loi boo xam ne day supprimer day abroger maanaam loi d'amnistie boobu parce que dañu bëgg mbir mu leer ñu xam exactement ñan ñooy responsable yi nga xam ne te jii ñoo tax ba tey jii suñu xale yi suñu ndaw yi tey ñu dee donc ñu jéem a dédommager aussi képp koo xam ne en tout cas victime la ñu jox leen ay ndàmpaay loolu aussi dafa pekk bokk suñu programme am na beneen programme boo xam ne man koy wax mooy la puissance paternelle tey da ngay gis ay soxna yoo xam ne pour des raisons de divorce nga yore sa doom mën ko mën ko fay ay études à l'extérieur ah mais ko ndax lan parce que tout simplement dafa am loi boo xam ne moo fi nekk mooy li naan puissance paternelle maanaam xale bi tant que papam joxul autorisation xale bi mënul génn mënul génn réew mënoo ko envoyé à l'extérieur pour assurer son avenir donc mu nekk genre xeetu loi yoo xam ne donc dañu jàpp ne que. mais ci li lañ doon xaar ci candidat yi mais euh, daanaka dafa tumranke li nga xam ne mooy jëm ci contrat législatif yi ni doo ko dégg promesse rek ngay dégg. waaw mais xam nga nit ki promesse nga mën a def parce que nekk goo ci pouvoir bi man ñun suñu coalition en tout cas li leer ba leer mooy tey boo xoolee par exemple coalition Aar Sénégal bi ñu nekkoon tey jii mais li ñu digaale woon ak population yi def nañ ko ceeb bi mu demee. mais waxoon nañu dinañ suprimer voter loi boo xam ne dañuy supprimer le haut conseil des collectivités territoriales am déet def nañ ko wala defuñu ko. Mhm. voté na ko wala defu ak lépp loo xam ne Thierno Alassane Sall en tout cas mi nga xam ne mooy tête de liste coalition Sénégal kese. donc lépp loo xam ne en tout cas digaale woon na ko ak askan bi la leer ba leer ne que su demee assemblée da koy respecté parce que loolu aussi mooy politique politique du ñëw wax loo xam ne yow gëmoo ko te gis nañ fi tey ji aujourd'hui tey ji ñi nga xam ne tey ji ñoo nekk tey au pouvoir tey digaale nañ fi ay promesses dul jeex fii la ñu waxoon ne bu ñu xëyee bu ñu jëlee pouvoir bi dinañ supprimer les fonds politiques waxuñu si fii la ñu waxoon dañuy criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité mhm. waxuñu si am déet fi la ñu waxoon ne que def ce qu'on appelle ay appel à candidature foras donc mu nekk ay xeetu promesse yoo xam ne tey jii aujourd'hui sénégalais si seen bopp je pense que dinañ si tirer les conséquences mais nag dañu war a jàpp ne que hmm. c'est pas parce que tel politicien def na ay promesse yoo xam ne respecté wu ko politicien ñoom ñëpp a yem te si am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi ànd ak seen gor ànd ak ay valeur ak ay éthique nga xam ne tey jii lépp loo xam ne waxal nañ ko ak digale woon nañ ko ak askan wi danañ ko respecté moo tax tey jii ñun coalition Sénégal kese dañ jàpp ne que en tout cas promesse yi nga xam ne moom la ñu nga xam ne moo nekk suñu contrat de législature bés bu ñu yàlla mayee ndam le 17 novembre 2024 ko respecté te Sénégal dinañ ci teg bët. amoon nañu mbégte loolu itam ànd ak yow Abdourahmane euh, Maïga euh, di euh, fàttali ni yow juriste nga bokk nga itam ci cercle des cadre république de valeur bu Thierno Alassane Sall moom mi nga xam ne moo jiite coalition Sénégal kese mooy tête de liste bi fàttali ni itam yow candidat nga ci élection yi ni mel amoon nañ mbégte loolu itam ànd ak yow. maa ma maa gën a am mbégte vraiment di la jaajëfal bu baax monsieur Dramé bi ma jox mën a waxtaan ak askan bi